إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bu ngeen déggee kàddu yooyu sëriñ Sarax Pen doon yëkkati léegi ngeen xam ci waajtaayu bis bu rëy di màggalu sëriñ Abdou Lahad kon bu ko defee dañuy daal di jox ki nga xamante ni si mooy yor kàddu daayira yëpp muy sëriñ Mbacke seen mooy jëkk ak wax ci wàllu daayira bi su paree ci wàllu jigéen ñi nañ jox soxna Maguette Kane moom itam dina wax ci cadre jigéen ñëpp mooy soññ ñoom ñëpp buñ paree sëriñ Jili Jaxate moom itam dina gën a waxtaan ak taalibe ak mbokk yi kàddu sëriñ bi moom sëriñ Moussa Diop lañ koy jox bu paree ñaanal ñëpp kon sëriñ Mbacke seen bisimilah. ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant ñu ngi leen di jégalu bu baax tey xam ne bu ngeen gisee waxtaan détail bi dañoo àgg ci bis boo xamante ni mooy bis bi nga xamante ni dañ leen koy fàttali am naa sax fàtte amu fi. waaye nag ñu di leen ko gën a fàttali rek muy màggal gi nga xamante ni mooy màggalu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñu diko ko fi ci keppaaruk sëriñ Seexuna Mbàkke mom sëñ Sidi Mbàkke mom sëñ Abdul Ahad mom sëñ Touba ñun nag ñuy wax ci turu daayira yi nga xamanteni ni ño bok ak ñom liggéey bi té di leen ci soñi té di leen ci wax ni bis bi aksina bu ko ñu tambulé ko ci sëriñ Assane Assane Lo moom mi nga xamanteni mo yoré daayira Touba bi bu ko ak daayira tu tank bi sëriñ bara Diop ak Serigne Saliou kan ci daaira benen benen daaira bi ñu ngi soñi tamit daaira Dakar bi ci njitul Serigne jeurine Demba ak daaira Ngaay ci njiitul Serigne mustapha Mbeng daaira yi nga xamantene ño nek ci koñ bi ñu buñ tuddé fédération bi rek melna ni tuddu na daaira yi nek ci koñ bi yépp ci njit Serigne Sarax Pen ak daaira bi nga Mustafa Miftahou Saada ci njitul Serigne Ahmadou sen daayira Mawahibou bu Nafia ci njiitul sëriñ Djili Guèye daayira Mawahibou bu Nafia ci njiitul sëriñ Maam Góor ca Touba Masar bu ko defee ñu ngi leen di woo ci bis bi ak mbooleem daayira boo xamante ni diggante Guédé ak Allié yaa ngi fi. pay Serigne Moussa Diop ñu ngi leen di woo ci bis bi te xam ni bis bi ñoom ñoom ñoo ko doon bokk at mu jot bu ko defee ñu ngi ziare daayira yi nga xamante ni ñoo nekk ci koñ bi yëpp ñu ngi leen ci soññi te di leen wax ni leen bisimilah ñu tàmbali liggéey bi. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. may fas yéene wax si turu Serigne Cheikhouna di fàttaliwu màggal gi waa kër Serigne Mohamedou Fadil si njiitu Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Mouhoud Boussa Dieng moom Serigne Mohamedou Fadil. di si teg waa kër sëriñ Aliou Mbacke si njiitu sëriñ Jili Mbacke di teg waa kër Cheikh Ibrahima Diop almashari si njiitu sëriñ musa Diop di teg waa kër sëriñ Darou Hassane Ndiaye si njiitu sëriñ Moustapha Bassirou Ndiaye ak Cheikh Ousmane Ndiaye di si teg waa kër Cheikh Babacar Diakhaté si njiitu sëriñ Jili Diakhaté di si teg waa kër sëriñ Fadilou Silla si njiitu sëriñ Moustapha Silla di seeg waa kër woo waa kër sëriñ Thierno Diouf Lambaye ci njiitu sëriñ Lay Diouf di si teg waa kër Cheikh Basirou Sarr Ndiaye njaamu sëriñ Touba ci njiitu sëriñ Abdoulaye Sarr di si teg waa kër sëriñ Mohamed Lamine Gueye ci njiitu sëriñ Mohamed Lamine Gueye ak sëriñ Maam Cheikh sëriñ bi nag mi ngi woo mboolem euh, mbokki taalibe yëpp mi ngi leen woo si bitu Cheikh Abdoulaye Mbacke bi nee na mi ngi ñaan képp koo xam ñëw fi suñu borom defal ko taw jërëjëf ñaan suñu moom su fas yéenee doole góorgóorlu mooy sonni sunu mbokki jigéen yépp ñu teel te teew te am fitna te xam ne liggéey sañ Tuubaa ku ca nekk dangaa war a am fitna ndax boo mut fitna rek kam fitna dem bala ñun suñu mbokki jigéen yi li ko tàmbalee ci koñ bi koñ bi nu dëkk nan mel ni basang yi ndax ku fi ñëw nun la fi ñëwoon gan gu fi ñëw noo ko moom fu daayira jóge noo ko moom nun nun nun nun waa ji nun jigéen ñi waa xale jeeg gi ndaw jeeg xale yu ndaw yi topp ci ñoom ak gone yu góor yi topp ci ñoom asen doog ñoom se fàll seen ñëpp nañ doon ay basang rek bu ñu doonee basang daal lépp dana baax jigéen ñi nañ teel a ñëw teel a liggéey jëkk fi mujj fi lu fi naral yàqu ku ko gis na ko daal di defar ca saasa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bala wax ñëpp yàlla na suñu borom boole jéggal noonu ñëpp. ginnaaw bu leen nuyoo ci kàddu Serigne Cheikhouna Mbacké ibnu Serigne Sidi ibnu Cheikh Abdoul Ahad Serigne bi mooy woote bisu maamam ju tedd ja Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu dëgmal ko mu dëppoo ak le 7 juillet 2018 fii ci Touba Aliya Serigne bi nag nee na mi ngi ci woo ñëpp. di ci wo wa keur seigne touba yep ak cheikh seigne touba yep ak dongay seigne touba yep waye it ku ne xam ne ku am keur wajuru wu góor am nga keur wajuru wu jigéen sëriñ bi neena mi ngi woo mboolem darmanko yep waye di ci jital Cheikh Amar mi nga xamne moy buntam ci wet gogou waye it mi ngi wo xaritam di sopem di wolerem di seigne Omar bass mi nga xamne ku xam sëñ bi xama xamee nga ko ak moom waaye sëñ bi nee na fàttewul waa bitim réew i taalibe yi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew mu ngi leen di woo xam ne seen pas-pas xam na seen yéene ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké rawatina moom ci jëmmam jëmmam ji kon daal sëñ bi nee na bàyyiwut kenn di woo it waa kër Mass Ndiaye ca Pikine mi ngi leen di woo fàttewut kenn ku dégg wax ji kàddu gi daal na xam ne loolu mooy sa woote wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.